asalaamaaleykum mbokki internet yi asalaamaaleykum waa Sénégal rawatina yéen ñi safoo di seetaan Medina TV saa su ne man Soufia maa ngi leen di dalal comme ni ma leen ko daan dalalee ci seen émission doomu Medina te damaa ñëw seet si le Neymar de la musique sénégalaise l'enfant chéri de la médina invité ko ci sama plateau daanaka sax moo ma invité ndax këram laa ko fekk duma def lu dul nuyu ko présenté leen ko yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi may xaar saa su ne El Hadj asalaamaaleykum. maa ngi lay nuyu ah, yow alaaji Papa Dieng mooy sa baay réew mi doo fi ñaaw cinq cinq sa maam tiir ma jigéen mboor ale ma jigéen mboor maa ngi maa ah naa fi ñaata ah, jeex na noonu la demee maa ngi lay bëggee di sama jigéen bu baax di bëggee waa Medina TV MTV sunu tele national waaw kañ sunu tele la ndax ñun waa Medina amuñu lu dul Medina amuñu lu sut Medina moo tax lu waay bind rek M bi bu feeñee rek ñooy borom ndax Medinatu Munawara la mhm, waaw alhamdulilah maa ngi nuyu ñëpp di béggee ñëpp di di kontaan ci seen teewaay fii si mhm, Medina. Mhm. El ñu ngi lay fay bu baax ñu ñëw la gën a kontaan balaa may xuus ci dara El Hadj dama lay dokkale di la félicité macha allah ñu ngi gis ne bekki de mooy ñaa nga doon marié di ñaan yàlla yàlla na sëy bi barkeel El tey nga dugg ci beneen vie. léegi nekkatoo célibataire sant yàlla comme nit ñu ko daan laajee rek mm-hmm. euh, ku nekk da ñaan yàlla am soxna mm-hmm. am ay njaboot yu barke mm-hmm. yàlla nag may nañu soxna yàlla na yàlla mottali yéene yi yeggali ñoog suñu sax bàyyi ñoog suñu soxna ma koy nuyu moom Bébé Damox ma koy nuyu bu baax di nuyu sama goro yi nga xam ni comme dugg naa ci kër lébu yi waaw fi mu ne nii maa ngi nuyu lébu yëpp ndax man fi mu ne nii sax lébu <laughs> kayta lébu non kayta lébu Keita lébu di biggee ñëpp képp kuy biggee El Hadj di jégalu tamit nag sama fans yi ndax waa ndax am na ñu bari mer nañu comme tamit dañu nekk ci jamono corona mhm. feebar bi tënk ñëpp mhm. te kenn mënul yëgale mhm. te xam naa ne bu ma yëgale woon kon du demee nii tey ëpp loxo loolu rek moo tax waxuma ko kenn maa ngi jéggalu samay fans di jéggalu samay mbokk di jéggalu samay xarit ndax buggoon naa ñëpp xam ni damay yeew soxna mais xam na xam àdduna yàlla mooy def mhm. ah, mbir bu dara tolloo foofu dina am ñoo xam ne war nañu yëkk am na ñoo xam ne bu ñu bu bu affaire yi passé la ñuy mën a yëkk parce que ñëpp mënuñoo yëggandoo waaw mhm. ah, loolu yàlla nag sunu matadi la waaw ñi ngi ñaan yàlla ñu jéggal ñu ñu baalu ak suñu fans yi ak képp kuy bëggee El Hadj te bëggoon teew ci xew bi incha allah dama koy bëtal dama koy dañuy xewlu waaw dama respecté mesure yi mhm. moo tax incha allah mais après comme ibbi nañu mhm. dinañu bàyyi ba ñu ne waykat yi am nañu ndigal way mhm. incha ma defal madame fête bu rëy nga xam ne ñëpp ay ñëw incha incha allah waaw. incha allah nee na bu boobaa dina dina bëggal fans yi. yëgal ko ñëpp bu kenn mer mi ngi jéggalu. waaw El Hadj su beesoo loolu tey Medina TV dañoo ñëw ci émission doomu Medina. Mm. ngay doomu Medina ñun Medina TV ñuy doomu Medina mais ñu bari xamuñu El Hadj Keita jaar-jaaram c'est-à-dire fi ñuy njëkkee ak yow mooy fan nga juddoo. waaw El Hadj Keita mi ngi juddoo Medina bi fi ngeen ñëw nii rue bi bii laa juddoo. angle 8 en face en face kër ñoom papa Ousmane Sène. ko ñoom koo seen ko ñoom bokkar seen en face foofu falaa juddoo muy rue 23 rue 23 laa juddoo rue 25 angle 8 laa passé sama enfance lépp noonu la demee moo tax euh, doomu Medina laa fii laa xam fii laa juddo fii laa yoro fii laa màggee musuma dem fenn fudul Medina waaw fii laa jàngee fii laa fii lañ ma tettee fii lañ ma xamale jàngale baa. lan moo la ci way nag li ma ci dugal mooy destin destin jaar jaar xam nga nit ku nekk bu sañoon di la doon leneen lu dul waaw xam nga rek man bu ma sañoon tey doon président sax voilà wala ma doon waaw comprendre ah, mais mais yàlla mooy wax nit jaar jaaram. ndax jiitu na suñu judd judd. li ñu war a doon waaw. te affaire bi dugg la cest à boo gis ba mu nekk xale bëggoon na bal. bien sûr loolu nekkoon na ci man mais ba tamit dama judd fekk suma papa di way. Ah, sama turandoo donn la mhm. ma fekk sama papa di way sama turandoo tamit di jouer kora ah, moo tax fale lu nelaw lu doon nelaw ci man la mu yeewu man tamit ma exploité ko waaw xam ne tamit am naa ci wàll c'est juste ma def ko di ci góorgóorlu ndax mënuñu dara fii yàlla rek man ñuy góorgóorlu. Uh-huh. donc El Hadj su ma la déggee bu baax yow way dëgg la noonu la mais fii nga ko jàngee ndax am na ñoo xamante ne dañuy dégg ngay way léeg-léeg mel ni bambara buy way. bien sûr parce que je suis nañu bari ñii naan ndax El Hadj Sénégal la juddoo wala dafa yaroo. Sénégal waaw non Sénégal laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee mais. comme suma suma papa Keita la. je suis Lawali Simbo Soxo Soxo Simbo ani Simbo Salaba Jakumalu Warala. yow doo bambara bien sûr bambara la bambara la man bambara kayta kañ bambara la mais bambara Sénégal. ok mosoo dem dem bien sûr dem naa Mali en 2008 boobu ba ma bëggee xam samay maam fi ñu juge dem naa def ay recherche yàlla def tamit boole ma ci benn compéti compétition bu mag muy muy euh, Kasanga yàlla def nag maam fa succès bu. jéggi dayoo succès bi ma foofu sax daf ma jaaxaloon ba boobu ñu ngi ma doon wax maskat sori Bakita foofu laa njëkk defee sama clip macha allah ma daa ànd ak Baba ni Koné ay Baba Ñaame concert Oumou Sangaré yeeg Salif Keita yëpp dañ daan dem di prester Amadou Ampaté Ba joué nañ fa Kaas Sanga yooyu yëpp ay Sidiki Diabaté Mamadou Mamadou Kouyaté ñëpp dañ daan ñooñ daan joué Kora macha allah maanaam ñu am fa tur mais ba ñu demee ba foofu ba ñu ñëwaatee ci laa taxawale sama groupe tuddee ko groupe tete commencé di jouer samay soirée groupe bi fu mu jógee muy sama ndijaay Idi mu ne nit du juddu rek waaw nit dañ koy tete hmm. waaw Tété la maanaam parce que xamoon lu tax euh, tete leen ma ci am na benn sama benn morceau maanaam tete leen ma damay raam maanaam Tété leen ma damay raam xam ngeen ni yoonu ndaw du gaaw waaw ku xamul laajul na ndem ngay sango yoonu ndaw du gaaw waaw waaw morceau boobu mhm. mm, tete mhm. parce que am na loo xam ne moom boo ci tàmbale te xamagoo foo jëm da ngay ñaan ñu tette la moo tax ñu tuddee suñu groupe tette groupe tette moo tax yàlla ñu ngi def ñu defar ñuy tette nag <laughs> comme wax groupe Tete. leen doon ba léegi dañuy Tete ba ak hmm. groupe Tete yàkkal la woon. man Mansour Bass Alaaji Fay Zapata ah Marcel Idi Kassé waaw ah, yooyu yëpp yow ba may tàmbale ñoom la ak Père Omar Kassé ak Capi Vieux Kaba. waaw Zapata Alaaji Fay ñoo tàmbalee ndoo sunu group yàlla def nag muy dox muy dox da ngeen jékki foofu Elane da nga boobu. waaw hmm? ba nga leen créé. fan nga njëkk a joué. fi mooy Sunset. def ko entrée 1000 francs Yoff BCEAO. jóge Medina dem ba Yoff. Yoff fa sama sama soirée fa en face la payotte. falaa laa commencé waa Medina di fa fekk muy fees dell ay grand woo ma téléphone. ne ma booy sa soirée bi ñëw naa démb mais booy El Hadj Keita bu ñu fonto ñun ni nga baax moo tax ñu ñëw de mais musique yi ngeen di tëgg nii ay pot ngeen di tëgg mu la ñu sonal li ngeen way nii kenn dégg ko waaw mais bien sûr tout début est difficile foofu ngay xamee ni maanaam hmm, c'est euh, suñ la wanul yoon rek doo dem loolu noonu daf ñu gën a motiver loolu moo tax non loolu moo tax ñu non loolu moo tax ñu daan répéter parce que daan ñu répéter dañ daan jël ay instruments yi rek ñëw tàkk gars yi joué doo paren saay guita euh, guitariste bi aw na le bassiste bi aw na le alaaji fay aw na le ku nekk aw na le man ma yuuxu rek gars yi di kontaan na mbalax bi kii rek waaw na mbalax bi dem rek parce que mhm. boobu mhm. c'était un plaisir di ci dugg mhm. jàppee ko ay fo def ba ci biir xam ni lii du fo liggéey la ndax dina am ay kilifa yoo xam ne dañuy ñëw après di la seetaan si te ku ñëw seetaan si la dalay wax sa xel. sabal suwaar nga remarqué ni kilifa yi ma daan gis ñu ngi wàññeeku. duuta sec duuta sec la commencé gis ay kilifa. ay kilifa commencé di ñëw ay melomaan ñoo xam ne dañuy déglu musique Mbacke Diouf ñëw takk gis sama musique ne ma eh du fii de des na liggéey waaw. te boobu soirée bi mi ngi doon fees. mais ambiance la woon rek. affaire du jeunesse affaire du xale. booy affaire da booy Medina nañ waaye nañ topp El Hadj. ndax boobu mooy mooy sunu waykat. boobu Youssou Ndour moom mi ngi doon jëm mag. yow yaa fi nekkoon Medina tolloo génération ñun ñu booy yi nga xam ne bu ñu ñëwee man tamit may woy lu ma saf. bu musique bi awee nele ma aw nele. Mhm. affaire da xale. Mhm. contre temps yi di jàll di fële. contre temps bu sabar bi ne rëggin gi dañ tas. Mhm. yow nga jaar na le ndar. kii jaar Ndakaaru. kële jaar jam ñaaja ku nekk di def lu la neex ci musique bi mais di nga toog benn moment bu nga ne ëpp nga dégluwaat sa bopp nga ne ma de ci ngay def recul dem xool ñi xam ñu xamal la ñu xamal la musique après nag ci ngay commencé comme non ñi nga ñi ngay xam di lañ demee ay Papis Konaté ay Mamour kase ñoom ñëpp ñu ñu ñu ñu Mamour Kassé nag moom il est il est spécial parce que daf may topp moom dafa may topp daf may moom daf may tak ñëwal kër ga ma ñëw mu taal clavier bi ñu joué mu wan ma ay affaire teg ma samay baat ñu dem Douta Seck am Adolphe Coly mu ñuy jàngal voix ma koy nuyu ma koy jaale tamit per Alex sunu papa bu baax moo ma jàngal guitare Douta Seck per Alex nga xam ni macha allah moo ma daan jàngal guitare di ma xamal ay affaire ci musique ba ma dem nag ba xam ni lii du fowukaay du fowukaay am na loo xam ne boo ko bëggee da ngay def ay recherche da ngay sob te man damaa yàgg sob ma def ay recherche pareen saay nag di laaj bu ma defee nii daal benn affaire dama woo Papis Konaté ne ko ndax neex na mu ne ma ok baax na mais changé li defal li woo Mbacke Dioum ne ko Mbacke comme yow yaa ñu jiite yaay sunu producteur yaay sunu lépp déglul lii bu déglul lii ne ma lii voix bi des na ah yokkaat ko ma yokkaat ko mu ne ma fii instrument bi lii la waroon def lii ak lii maanaam après si na ngay commencé nag xam ni lii maanaam du foo te am na ñu lay déglu am na ñoo xam ne ay mag lañ dañ ñuy bëgg te yàlla tax c'est lañ commencé defaraat suñu musique nag macha allah ba léegi alhamdulilah ba léegi nag pare ku ñu defar suñu musique ndax ndax non non ndax liggéey moom du mokk da ngay chaque jour da jàng du wees ba pare chaque jour da nga nekk. El Hadj damay delluwaat ci sa début yow ba ngay soog a débuté amoon nga ménagère wala da nga doon comme nekk yi da ngeen doon téeli téeli rek bien sûr amoon naa ménagère bi nekkoon bi bi nga xam ne ba ñuy tëñëx tëñëxi bi nga xam ne ba ñuy tëñëx tëñëxi ménagère boobu loolu sama polofuta bi bi nga xam ne ba ñuy tëñëx tëñëxi boobu ba ba xanaa mooy ba tey ma daan seen grand théâtre mooy ki mu ku xees ki rek tey mel ni polofuta waaw biram sama pël bi moom la parce que moom euh, duma ko wax sama ménagère sama moitié la biram papam daf ma ko dénk sama papa dénk ko ko dénk dénk ma lan lan lañ ko waxee dañu suñu papa yi dañu dénkante biram sama moitié la mm-hmm. sama moitié la sama lépp la maa ngi ñoo defandoo lépp sama lépp la biram ku koy laal laal ma parce que nit da ngay sa say nitu démb ba may njëkk a jouer soirée midnight ki ma njëkk a takkal or xamakal la ñu bari xamuñu ko Mbay Sekk wëndeelu Mbay Sekk sama copain ami d'enfance moom biram ñooy ànd moom a njëkk a takkal montre or Mbay Sekk moom a njëkk xamal or te ñooñu xarit rek la maanaam ñoom ñëw lay njëkk a biram moom a njëkk a gëm moom Mbay Sekk maanaam côté boobu xam nga say xarit dina am ñoo xam ne dañ lay gëm xam ni lii dina baax moo tax ma jël ko teg ko palaasu ménagère muy dox sama lépp muy def ñuy defandoo lépp waaw noonu la demee ba pare ba pare papam ba muy gaañu dafa am lu ñu wax man sam pap ba ba mu avant moo gaañu dafa am lum lu ñu wax ñu toog nii. kon da ngeen yàgg. dañoo yàgg maa moom dara du ñu tàkkali ko. incha allah noonu la demee moo tax. affaire yi da ngay fonk say nitu démb ba pare boole kook liggéey rek yàlla jàppale la. El Hadj balaa ñuy a xuus ci wàllu liggéey beeg yooyu bëggoon nañ xam sa diggante ak sa xarit yi nekk ndax muy man di ku jël Rue 6 bi noo def seen El mu toog ay xaritam loolu ci yow wala da ngay bañ ñàkk. mooy sunu gàllaaj mooy sunu mhm. gàllaaj parce que mhm. booy dugg ci aar. Mhm. artiste nga dëgg la dina am di am tur yàlla dina la ko may. mais bul gis succès bul gis loolu parce que nit mënoo gën a foor ñi nga juddool ak ñi nga daan àndal ak ñi nga daan nekkal loolu moo gën a neex sax ay nekk am succès am succès yooyu yëpp ay kii mais nga am succès di ànd ak nga daan àndal moo gën a neex lépp daf moo gën a neex parce que da ngay xam seen démb ñu xam sa démb maanaam bu dara di ñëw di la loor dañ la koy wax dañ la koy wax duñ la la bëgg lu la gaañ. Mm-hmm. même buy metti dañ la koy wax. Mm-hmm. lool dafa neex. moo tax ba pare parrain saa ñam ñu am temps. Mm-hmm. parrain saa jot de. mais dañuy ranger dem studio ñëwaat wala ay sere suñuy affaire mais bu ñu amee jot gi rek damay dem toogaat fa ma daan nekk di waxtaan ak ñoom mais du tout le temps parce que duma jot bi duñu ko may. mais saa ñu amee temps rek dañuy dem def li ñu daan def moo tax am ak jàmm ñëpp taalibe. parce que loolu mooy àdduna parce que fii moom àdduna amul solo noonu la demee. El Hadj boobu ba tey yaa ngi ci biir aar bi am nga difficulté yoo jot a yoo si jot si si koy waxee ci bien mhm. day metti tout début est difficile. Mhm. Euh, booy dugg si lii sax di yor sa micro di wax dina am ñu muy neex dina am ñu muy naqari dina am ñu la ci encouragé mais dina am ñoo xam ni ah ndeysaan xam nga rek ku ci nekk ak sa xel fu mu toll mais yow yaay. gumba tëxlu ba pare dina toll benn moment boo xam ne dina metti mais bu mettee da ngay xam ni yow yaa opté nekk loolu te faw mu metti yoon balaa moo neex faw mu bari ay kijin kajang kujung kajang yaa koy ñeme rek dem boo ko ñemewul doo dem mhm. te yàlla def na ah ah xam nañu li ñu bëgg xam nañ fuñ jëm te yàlla nañu yàlla kàttanal moom mi am kàttan ak mën-mën na nañu may ba ñu yeggali sunu bëgg nunu mbëbët waaw parce que dina metti trop mais di nga toll benn moment boo xam ne da ngay xol rek xam ne nii la war a demee te bu méttee la yuuxu rek da ragal waaw te parce que am na ñoo xam ne ñoo la gën a métti la jaar-jaar te buñ la ko waxoon yow doo yegg ñeme dem am ñoo xam ne ñoo gën a métti la jaar-jaar buñ la ko waxoon doo ñeme dem léegi nag da ngay rek puus dina metti moom lépp a metti ci àdduna toog rek di toog di xoolal yi rek daa metti dina toog sa benn côté bi dina metti sa benn nga def nii ba ci yàgg moo defaan toog rek toog di xëy di toog rek dafa metti nga toog nii da nga toog ba si yàgg ne fii di metti dara yombul El Hadj àdduna dara yombul moom nga wax léegi El Hadj euh, sa premier xam nga léeg-léeg da euh, boo xam dafay répété mhm. sonn mhm. pour bi jàll rek c'est tout un waa sama premier album waaw ni ma ko dundee comme métti na méttiwul parce que tamit nee nit boom boo amee cofeelu dara cofeel boo ko amee ci dara rek doo gis méttit ba ak plaisir bi cofeel comme yow bu amee cofeel ci yow maam nga am lu ma la metti ci man yow boo amee sa cofeel ci man ma am sa cofeel ci yow nga am ma metti yow boo waxee rek tak tamay giif xam loolu da loolu xam nga àdduna mooy maanaam di nekk ci mbir dem sóobu ci rek nga woy benn affaire doo xalaatati sax dina neex nit yi wala du neex mais yow bu la neexee rek yow dina da jàpp ne day neex ñëpp comprendre passion la loo mhm. xam ne yëg-yëg la mhm. yow boo ko yëgee rek pour yow sa morom dina ko yëg lan difficulté nga ci merci day metti day metti non day metti nga enregistré macha allah rek mu génn wala enregistré nga ba sa xel dal nga dem ñu ne non non peut-être non non man moom mosul loolu mosuma dal damay ñëw enregistré mhm. sama yoon mu dugg après ñu ñu xool ñu xool yàlla def ci parrain saay mu am succès parrain saay nga way benn affaire boo xam ne dina am ñu mu neex am ñu mu neexul mais am na dina am way benn affaire boo xam ne ñëpp lay neex loolu yàlla moo koy def loolu yàlla mooy baaxal yàlla mooy teg loxoom ci lu nar a baax waaw loolu kese la. El Hadj gis ne chaque 24 décembre da nga daan ñëw def ay concert ci biir Russie bi euh, daan ko may sa fans loolu may fans yi la woon. initiative bi fan la bëgg nañu wax ci euh, loolu ñoo toog man biram Mbacke ñoo toog ñu waxtaan si macha allah yàlla def ci tawféex. Mhm. ñu daan dem saa ñu ak sama staff nag. Mhm. ñoom Lamine Diop ñoom Requin. ah ñoom Moriali ah ah ñoom Aline Fall ñoom Babou Ahmada Ping Ahmed Diop <laughs> ah ñoom Mbëkk Saliou ah ku lim Dioum ñoom laay pii waa waaw ma lim leen nag parce que faw ma lam leen faw ma lim leen parce que su may xarit lañ su lépp lañ dañu yàgg sonn ci man mm-hmm. ñu yàgg sonn ci man ah dañu fa parce que xam ma leen di lim ah, ñoom Aline Fall ñoom ñoom Cheikh Niang ah. baabu ñoom ñëpp parce que bu ma limee bu parce que du ñu jeex ñoom dañ may jàppale ci lépp ñu toog ñu ñu waxtaanee rek tak ñu def rek yàlla mooy baaxal ñu def ndeysaan ñu ne xaaral Médina léegi comme dañu gis ni concert yi fi daan am bareetul hmm. bareetul de non bareetul. amatul sax. amatul woon amatul woon amatul woon dañ daan gis tak dañ daan may ay concert santaan Médina hmm. boobu noonu la ñu gëj la gëj a gis concert Médina ma ne non mais pourquoi pas benn El Hadj Keita muy maye chaque at 24 décembre concert ma may ko fan si ñu bëggee Médina tundaat parce que incha allah ñu ngi waajal benn benn 72 heures de la Médina ah. waaw ñu ngi koy waajal mhm. incha allah mhm. te projet bi ti lañ ko jox waa m Médina parce que mooy sunu télé ñun waa Médina mhm. waaw ku am nga ta télé ah franchement on a. on a on a notre télé. ragal ragal pété day xañu wërsëg may leen ñu loolu quoi suñu télé la c'est la Médina <laughs> noonu la demee parce que yàgg ñu dem tele yëpp wax leen ne leen yéen a fi ne. Ah, dañ waaw mais parce que da ngay toog da ngay toog du ma la nëbb waykat ñun ñëpp yàlla dafa def loolu dañuy toog benn télé ne yaa fi ne télé bi yaa fi ne waaw parce que yàlla mooy def loolu mais Médina TV moo fi ne. <laughs> sunu yëfa noonu la demee. <laughs> Ah. El Hadj Sànq maa ngi lay dégg yaa ngi naan que yow way da ko doon sa papa moo nekkoon waykat mais nit ñi ñu ngi naan El Hadj moo ko génnee sa cant ndax ku xam El Hadj xam kook seen Modou Kara. ndeysaan ah, waaw waaw waaw waaw bu baax. maa ngi ziar jékki nga jógee si euh, cant gi dem directement ci mbalax bi. <laughs> non mais euh, euh, xam nga ku ci nekk destin day am. Mhm. jaar jaar day am. mooy nuyu sunu kilifa Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di ñaan yàlla mu yàgg ko fi léegi waaw di ñaan sëñ Mountakha Mbacké Bassirou misi jal bi mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaw ndax ñun dañu jokk xam nga yoonu Serigne Touba daa am ay branche ñun nag ñuy waa kër Noreyni ñu bokk kër Seydina Ousmane Mbacké Noreyni sëñ di sama wasila ibnu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ibnu Yaabi Mbacké waaw muy sama sëriñ di sama xarit parce que daanaka moom moo tax ma daan sikar mais sikar bi du woon métier du sama métier de boo doon sikarkat ay ngan di bàyyi laxaat laay sol de du ma solati jiin du ma solati mais sikar si plaisir la woon parce que dañ daan ànd ak si ñax ma daan ànd ci cant yi daan ko def nii mais boo bëggee maanaam comme lima la doon wax damaa judd fek suma famille di way c'était juste man loo falee ma way mais sikru laa duñu ko mës a si xam nga moo zikru la mooy tudd turu yàlla de. waaw loolu mooy zikar mooy sikar de. Hmm. ñu bari nag ñu bari nag du bien sûr dinañ bien sûr ñu ngi waaj album boo xam ne international la ay ay ay ay son yoo xam ni ay violon lay àndal ah comme Cheikh Ahmadou Karam Mbacké ne sunu wasila philharmonie islamique gis nga bi mu woote loolu musique bu sell la waaw waaw noonu la demee am nañu am nañuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di teg ay violon te musique boo xam ne bu doy waar la waaw noonu la demee moo tax ah loolu dinañ ko waajal incha allah ñu way ci sëriñ bi boo xam ne doo am du am ay tëgg yu bari dina dina loo xam ni lu soft lay doon loo xam ni ku ko dégg rek di nga xam ni lii sell na waaw noonu la demee moo tax nag euh, loolu moom ëpp naa wax bàyyi sikar ëpp naa wax dañoo mënul bu ta boole lool rek te ndeysaan te tur bi ñoo ànd de waaye te mais tur yi ñoo ànd tur yi ñoo de <laughs> mais ñun mënuñu ko boole ni mënu maa boole di woy mbalax ba pare di di boole lële moo tax noonu la demee loolu kese la mais bàyyi woo ko doy na waar non bàyyi bàyyi bàyyi ma du façon bi ma koy defee niñ ko gars yi di defee comprendre bokkul quoi bokkul parce que tamit waaw parce que par exemple moom di nga toog yuuxu laa ilaha la sikru laa ci kaw waaw noonu la demee moo tax waaw El ñu gis la nga def euh, concert gratuit ci Russie bi deux fois mu nekk ay dates yoo xamante ne yu ñëpp di bàyyi xel la muy 24 décembre ñu jóge ci loolu nga def vaar kuy kuy romb sax ñu naa la eh gis naa la vaar de xoolal vaar kuy sinap yaa ngi vaar nen dellu vaar xam nga yaa ma gën a xam est ce que nekku yow succès vaar boobu noonu moo la yóbbu grand théâtre vaar a indi grand théâtre vaar laa gisee grand théâtre bi leer na <laughs> vaar laa gisee ni grand théâtre bi leer na nañ vaara ma woon loolu moo ma loolu parce que dañ doon testé non non non pas vu yi dama doon testé sama doole dama xool sama doole parce que waykat dina toll benn moment boo xam ne da xool sa public ndax ñeme nañu ma am public bu ñeme nag fu ma woote ñu fekk ma noonu la demee ba ma wootee ndeysaan 24 décembre bi ne dama koy toxal réussite bi 24 bi bi yoon ren du am dama ko yóbbu Grand Théâtre mais ñëpp ak waaw kontaan doon ko waaj macha allah ñu am ci ndam yàlla may ñu ci ndam may remercier sénégalais yëpp nag waa di remercier ñëpp ndax ku ne jóge fu ne ñëw particulièrement waa naa sama xol waaw ñoom laa bëgg. loolu neex na amoo seen fay euh, El ñu gis ni danga nga jógee Grand Théâtre génn Ndakaaru dem Thiès. Zalex design moom boga sur pas Salif Pa Salif borom États-Unis borom USA Pa Salif mi nga xam ni macha allah dafa bëgg El Hadj Keita ah euh, yàgg ma jàppale. parce que nit euh, dina toll mooy moment yoo xam ni buñ la puusul rek doo dem mu bokk si ñag ñi puus El Hadj Keita parce que dafa gis ni woon commencé wu ma woon ci région yi munuma boo paree boo paree grand théâtre dañuy song Thiès. moom mooy sa première sortie boobu non bien sûr non joué woon nañ Thiès sax. Mhm. mais euh, bi ñu joué nii boo ko tax bi ñu woon de waaw. bi pib bi dafa pib bi dafa jàll macha allah waa Thiès yëpp génn waaw te mu nekk 31 décembre. jour 31 décembre. macha allah soirée bi neex ala daw mais fees del mu neex loolu ñu ci remercier Pa Salif borom Zalex design borom États-Unis mbokkum yaay Sofia Dieng Sala ma koy nuyu Sofia ah di nuyu sunu <laughs> sunu sunu ji ak sama ah, chéri Zalex Amina Amina bés sama jigéen bi sama xarit bi ak gaaw ci man ay dollar rek may may <laughs> waaw kooku kooku yóbbu na sama tur fu kawe. Bin mm-hmm. Bin Fall yóbbu na ma Bin Fall xanaa xamoo ñu bari Gavara tax mais Bin Fall bu ñu xamee El Hadj Keita Bin Fall moo tax. moo tax kuy def defal lu baax dama doon def lu baax mm-hmm. yàlla ful ko muy ma woy benn femme boo xam ne elle est battante day daan dooleem di xëy suba di liggéey muy ñu war a way ñi nga xam ni ah maanaam demeewul noonu mm-hmm. àdduna booy way parin saa dangay xool ñi nga xam ni war nga leen mën a yëkkati nga yëkkati leen te yàlla moo koy jaarale ci yow du sunu njàmbaate du sunu ngóore mais yàlla moo koy jaarale lool ma ci remercier bin Fall mi nga xam ni maa ko way mu tàq moom laay remercier ma remercier wu ma sam bopp Bine Fall mi nga xam ni moom laa way affaire def buum non Bine Fall jërëjëf non Bine Fall lépp yow la waaw yàlla foofu la ko jaarale waaw la demee Bine Fall moom toj na àdduna moom yii partout lañ may bii faa partout lañ may woo. da ngay gis naar yeeg tubaab yeeg ñag yeeg moom kay. fépp lañ may woo ndax Bin Fall fépp lañ may woo ndax Bin Fall. El eh, Hadj nga nekk Medina bi nekk fi artiste boo xamante ne xale nga ñëpp jox la bopp tarkaal la ah. mm. xale yi mbër yi waykat yi joueurs yi xam nga boo nekkee ci mim réew ñëpp di ko xëccoo Medina instant bi la ñu nekk di ko xëccoo nan nga ban relation nga am ak euh, célébrité yi fi nekk c'est-à-dire. politiciens uh-huh. foofu laa bëggoon ñëw foofu laa bëggoon ñëw waaw foofu laa bëggoon ñëw dama bëgg ñu xam ne man seen doom la man El Hadj uh-huh. uh, ñi fi nekk uh-huh. nekk fi ay kilifa yàlla jiital leen hmm? samay papa lañ ñoom ay kilifa lañu te ñun ay ndaw lañ dañoo nekk ci yoon. ñun ñu fonk leen lool mais dina am ñoo xam ne dañuy wër di yàq mais loolu mënut a ñàkk parce que fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi mais képp ku mës a jàppale El Hadj Keita lenn rek man El Hadj Keita maa ngi la koy ñaan nga baal ma ko ndax tamit ay ndaw lañu pare saa ñu juum waaye nañu xam ni ñoom ñooñu ñu jaboote muy ku ci mel ni Bamba Fall muy ku ci mel ni Cheikh Ba. muy ku ci mel ni Seydou Gueye muy ku ci mel ni Pape Abdoulaye sek muy ku ci mel ni yusu jal muy ku ci mel ni Pathé Ba ak ñoom sunu tataay ta may mun sek Seck ah ta mun a may mun a Cheikh Ba ak ki euh, Cheikh Seck ah ku lim da jub parce que lim moo metti dañ leen di wax ñun seen doom lañu te ñun Médina rek la ñu am ñun ku yuuxu pour Médina rek ñu yuuxul la ba pare dama bëggoon tamit loolu gars yi xam ko faruma fenn bokkuma benn camp dama bëgg mu leer quoi léegi dama am soxna kilifa laa non kilifa laa barki Seydina Mohamed dama am soxna kilifa laa te ragaluma fi ma jëm ndax du ma tooñ mais faruma fen je suis pas un politicien na gars yi di baña a confondre affaire yi euh, Bamba Fall bu ma defeelee lu baax damay jël sama téléphone bi snap ko ne ko monsieur le maire merci yaa fi ne defal nga ma lu baax Cheikh Ba bu ma defeele lu baax damay jël sama téléphone bi ne ko monsieur le tey Cheikh Ba messi de la Médina yaa fi ne kenn du yow Youssou Diall bu ma defalee bu baax damay jël sama kii bi maanaam daanaka man El bu medina la El bu Sénégal la faruma fenn mais gars yi day ñu lay utloo ay camp ndax di nga nekk ak relation ak nit bu yàgg ñu bëgg ko yàq non non man faruma fenn par parloowuma kiiwuma maanaam dama bëgg ñu xam ni man waykat laa tey Bamba Fall dama koy way Cheikh Ba dama koy way Seydou Gueye dama koy way Pape Abdoulaye Seck dama koy way man waykat laa ñoom ñëpp laay way parce que loolu yàlla moo ma séddee noonu waruma far fenn maanaam dama bëgg muy leer rek parce que xam nga àdduna neexul jamono neexul ñu bari dañ lay utal ay camp te ay ndaw lañu dañu nekk ci yoon te buggu bëgguñu lu ñu yàqal suñu yoon loolu képp moo tax ma kontaan ci question bi ma posé daf maa neex parce que ñu bari dañ lay utal ay noon waa féete fenn te yàlla te yàlla xam na ni yàlla xam na ni maanaam di nga toll fenn moment boo xam ne xelu xale dina la jàpp mais pare di nga di nga toog nag nga gimmiliku xam ni lii mooy àdduna dama dem nag gimmiliku xam ni lii mooy àdduna ma xam ni politique ma El Hadj Keita politique gul la Médina politicien El Hadj Keita est le chanteur de la Médina damay woy Cheikh Ba damay woy Bamba Fall damay woy Seydou Gueye damay woy Pape Abdoulaye damay woy Cheikh Seck damay woy Pathé Ndoye Ba damay woy Youssou Dial damay woy MTV Médina rang mooy MTV. <laughs> mbokk yi ba tey yéen a ngi émission doomu Médina sama invité moom sax moom invité ndax tarkaar la. yi fi yànni yi na ba dee El Hadj koo gis am na royukaayam. am na référence. Oh. ngay xale. Ah, moom bu ma ko sax wax yi Médine jom la ñuy wéyee loolu wax bu yàqu la tamit ah naa dëkk Médine naa di am beneen roy waaye bu maa jigéen Ndour mu defal ma loo xam ni ah ma ko ci sama papa ma ko ci sant di ko gërëm. sa digganteeg moom ndax gis nañu keroog ba nga ba nga ba ngay dem grand théâtre dafa def lu rëy yombul nga gis Youssou Ndour déplacé wu ñëw ci nit au contraire da nga koy soxla dem fekk ci ko suma papa mu ñëw def déplacement suma papa la suma papa de xol sama papa sama papa de cœur sama papa de xol dama ko bëgg mooy suñu référence parce que dafa yóbbu suñu tur tey bu ñu ñemee way moom moo tax waaw loolu waaw loolu loolu dañ ko ci sant di ko ci gërëm moo tax bu déplacé woo bàyyu biraat dóor damaa dama dama sama sama xol daa sedd ci moom daal awma lu may wax parce que ñoom ñooñu jiitu waaye war nañu yoon bi ndax Papa Thione tamit barki Demba Ndiaye woo na ma ci albumam Papa Thione way naa ñetti morceau mag Papa Thione ma koy nuyoo bàyyi Waly Seck te jox na ma boitam jox na ma boitam ma fay joué penc mi mhm. ah yàlla dafa def man universel la donc sa diggante ak artiste non dafa neex parce que universel la fa laa ñëw nii Pape Diouf yóbbu na ma Bercy Viviane yóbbu na ma Zénith ah. ñi ngi filim ñëpp Pape Diouf banlieue la Viviane dëkkul Medina laalal ma ci artiste Medina yi seen diggante ça. non mais mais bien sûr Medina am nañ Pape Birahim sama mag sama xarit supion nee na Ndiaye Mass ba ca Bargny géej géej ku ma layti Ndiaye mbokkum yaay daam ah parce que ñoom dañoo tette. jiitu ma ci yoon bi ba pare wan ma yoon bi galgaluñu ma xoxataluñu ma duruñu ma korose ba pare waaw waaw des na des na non des na des na Médina laa wax de waykat yi Médina dañuy fàtte waykat bu mag bi am na waykat de am na waykat bu bari jibi sëy ak kay ndaanaan jibi sëy c'est chanteur de la Médina gars yi bari dañuy di jibi sëy c'est waykat bu mag la macha allah parce que ñoom dañ daan dem dama daan dem Jibi Sey di ko seetaan soirée muy way sama yaram di daw barke Cheikhul Khadim. ñoom ñëpp yàlla def na. su may ñëpp say nit lañ mais demaguñu Saaraba wala ñu dem feneen ba gis benn paa bi daal ñëw ne xaaral ma la la wala ma tef tuuti. da nga nit lañ aussi. nit mënul mag magam ñoom dañuy jiitu man ma topp si ginnaaw man maay xale bàyyi ma raam rek sama groupe nan la tudd group Tete. ba léegi. non ba léegi. El Hadj El Hadj bul génn gaaw dama ne la El Hadj Keita. ba léegi dañ may tette gis nga depuis ma depuis wax la dama la invité ba tey yaay sa man. yaa ma invité sax laa de ndibaa bu mag laa. waaw d'accord léegi dama de eh, sama cukal bi day mbalaa de. laa yow. ñun ñëpp benn lañu ah ñi fi eh, ne ñëpp ay doomu Medina lañ man doomu Medina laa yow doomu Medina nga sama caméraman yi gunge si ma ay doomu Medina lañ mais El ñun. ci biir showbiz bi dañ nekk dañuy mm. ñëw say soirée mm. comme kaneen ak kaneen mais gisaguñu foo tëggee soirée waxuma wax grand théâtre ba tey mm. damay wax soirée yi nga daan def chaque samedi benn euh, Pa Birame ñëw wala koo wax say kii pourtant jibi say pourtant dañuy ñëw mais xam naa doo leen gis dañuy ñëw dañuy ñëw mais doo leen gis dañuy ñëw grand dañuy ñëw way ba mu neex grand yi ñëw way ba mu neex ah ñu dem seen yoon xam nga sax ma ñu yàq xam nga ay grand lañ ñoom dañuy yàgg fenn dañuy ñëw cof rek dem non garaaw ñoom parce que ñoom ñooy jiitu ñu topp seen ñoom bu ñu ñëwul woon sax man maa war a dem may xale te man maay dem fekki ji leen loolu kese la loolu mooy àdduna. amiin El Hadj nga Grand Théâtre def fa doom tarkaar la ah. ana luñu projet yi nga war a foo war a demaat lan ngay waaj. incha allah ñi ngi waaj ay projet ñi ngi waaj album fi mu ne nii. ñu ngi waaj ah, ah ñu ngi ñu ngi ci répétition ñu ngi dugg studio te bëgg naa waa Medina MTV ñëw seet si may studio ñu xool li ñu liggéey ah, wala ngeen ñëw répétition ngeen xool li ñuy liggéey waaw pour ñamal tuuti mais doo leen jël lépp de da ngeen di cof rek waaw ah, parce que bugguma yu ba gaay bugguma gaay di gis dégg affaire yi du liggéey balaa moo neex waa liggéey balaa moo neex rek mu waaw mu làqatu noonu la demee may bëggee ñëpp ñi nga xam ne dañoo bëgg El Hadj Keita ko jàmm ndax moom jàmm rek la leen yéene aw di nuyu sama xarit yëpp parce que parce que àdduna ah, nii kese la boo fonkee say papa fonk say mag fonk say dijaay fonk say nawle bu ñuy séddale lu mu bari bari da ngay am looloo ñu dal ñun dañoo teel a wàcc xam suñu bopp ah di moytu di dugg ci yenn détails yi ñu ñu dugal parce que aar dafa yéeme àdduna moo yéeme sax parce que nit dinañ la tëkkaleeg nit wala ñu jéem la teg ak nit non non ñu dunduñu loolu defuñu loolu suñu bopp suñu carrière la ñuy topp concurrence suñu defuñu yooyu suñu bopp moo tax bu cëru di am bu ñuy seddale non dañuy am lu même bu tuutee sax dañuy am. El ni nga waxee séddale bi léegi yaa ngi ci xolu Medina xale yi bëgg la El Hadj gën a garaaw mooy nawetaan ak ASC yi te gis nañ ne ASC yi ku ci jël coupe ku ci dem final ba demi final. kan lay woo lan nga dundee loolu ak ASC yi. te nga wax ma ban ASC nga aussi. te bu waxal rek nag. Eh, <laughs> kaay ma la. moom laa la wax sànq. Médina laa am. Médina laa juddoo. Médina la yoro mais waa Ngaraaf yàgg naa leen sànni xeer de. Ah, non non Ngaraaf. Ngaraaf yàgg naa leen sànni xeer. waa Rëbës. Ah. yàgg naa leen sànni xeer waa jamono yàgg naa leen sal xeer non dañ ma dëgg rek mais léegi universel laa de ay gars buñ ma kojee nuñ ma dóor waa ngaraab bi see non buñ ma tëjee dina ma non Medina laa juddoo ay see non waaye yow tamit <laughs> noo laaj ma non non déglu ma nga ban la maa la koy wax de waa Dames yàgg naa Jekko yàgg naa leen sànni xeer Kusum yàgg naa leen sànni xeer man ay see Medina mooy sama damaa joom El Hadj Keita xool xam gis nga Jean gis nga waykat yi waykat El ay see Medina mooy sama ay yow man dëggal naa ak Ngaraaf fi Dames dëggal fi. sa jamono El la. dëggal tëggal déggoo wuy ma yooyu yëpp ay contrat jekko eh, on parle de ah. contrat yaa ngi wax waxu contrat jekko wala yaa ngi wax waxu ah. contrat jekko tëggal eh, la ko féete day xaju wërsëg ah par may sa ASC mu leer moom moom bii ASC Médina <laughs> waaw d'accord dama forcé njaboot dama njaboot léegi trop comme li ma la doon wax sànq boo duggee sama soirée doo xàmmee waa Dames doo xamee waa ngaraaf boo duggee sama soirée doo xamee waa jekko doo xamee waa jàppoo derby yi am yëpp fii doo xamee kenn ak kenn yëpp benn la moo tax léegi sama ASC ASC Médina la eh, eh non sama ASC Asalem Fass ASC man Asalem Fass maa leen bëgg parce que madame fa la dëkk ah. maa bëggee waa ASC Asalem Fass parce que madame fa la dëkk te léegi nag ASC HLM Fass buy fubal maa ci jàpp de loolu dama koy teel dama ci jàpp parce que madame fa la dëkk léegi fa la boobu non demal nànk wax boobu xaw ma ban ASC mooy jànkoontel ASC HLM Fass mais bu ñu jànkoonteeg ASC HLM Fass non damay sot madame laay faral ah ñu dóor beneen équipe bi ñoom faar fa yàllaaw <laughs> rang muy takk jabar <laughs> non célibataire a gën a bon ci àdduna maa ko wax rang muy takk jabar El changement bu gaaw bi kañ nga takk jabar samedi xaw ma dimanche waaw mais mais ma rek ma daana ndax émission bi fi mu toll nii sànq ba tey El moom nga ma yàgg ti tutuwaay ci émission bi ma dama am jëkkër de nekkatuma célibataire marié laa comme yow d' accord léegi may ma may eggali lage Hadj dimanche nga takk soxna nga dugg ci cour des grands man ndekete damaa ñàkkoon fayda ñàkkoon jom <laughs> ndekete célibataire gën a bon ci lépp yàlla bind maa ko wax man El Hadj Keita. El maa ngi lay gis léegi nii yaa ngi tooñ célibataire yi te gis naa ne keroog sa jour mariage ta Mbaye dafa ànd ak yow te moom amagul jabar El Hadj. gunge moo gën a ñàkk fayda fii <laughs> lan léegi man ku takkul jabar da nga fayda. Tarba Mbaye dafa war a Sidi Diop Tarba Mbaye non moom moom dama ko xaw a rus sama sama waay la moom moo dama ko a quoi xam rek mais xoolal moom moo dama ko rus Pama Dieng ñàkk fay da nga def Sidi Diop ñàkk fay da nga def ah. Tarba Mbaye ñàkk fay nga def xaaral ak xan xan xaaral defal nànk rek defal nànk rek kan am na am na jabar moo moo moo ñu njëkk ah, moom takk jabar moo njëkk takk jabar moo njëkk takk jabar El Diaz waaw man daal man daal dix mille problème moo gën a ñàkk fayda rang muy takk jabar waa yow <laughs> waa dix mille problème ré eh, dix mille problème rang muy takk jabar yow rang may ñu dara El Hadj balaa may tëj non instant yi damay kii madame nee na bu ma way lu bari madame moo ko wax madame madame nee na ma slow down ma noppalu ko tuuti slow down la ñuy wax slow down madame moo ne du ma way tey site bi doon leen may loolu madame nee bu ma way te du ma way. waaw yi gis ngeen ah fii lay xewee saa su ne Medina TV dafa di doomu Medina may doomu Medina rek. ñu wax ñuy waxtaanee Medina nii rek la mën a demee. El Hadj daaj nga ma d'accord li nga wax yëpp dëgg la léegi li nga yoon nii lan la MTV MTV Médina TV la chaîne médinoise. nan nga gisee Médina TV bi nga xam macha allah sama la catu laamin sama laamin moroom defaguñ sax ci ci euh, yëf yi deux mois. Euh, yal na leen yàlla yal na yàlla yal na leen yàlla taxaw yal na leen jàmm parce que lii lii la mooy àdduna nit da ngay liggéey gëm sa bopp loolu mooy àdduna te gis naa ne yéen ci yoon bi. ñaanal waa Medina MTV mi yàlla na sut ñëpp bi jaahi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam barke borom tuba yàlla na sut ñëpp parce que sunu sunu fierté la ñun Medina la ñu am ku nekk sa gox ngay tiitaro ñun Medina la ñu am moom la ñuy tiitaro ku ñuy bëgg nag ñu ci bëgg ku ñuy bañ nag ñu ci bañ Medina TV mi yàlla na sut ci TV yëpp waaw kay <laughs> rang muy Medina TV mbokk yi ñoo ko gisandoo ah yéen ñi safoo di seetaan Medina TV saa su di am contentement saa su di leen béggal comme ni ngeen koy bëggee El Hadj Keita moo nekkoon sama invité tey waxtaan nañ kaf nañ foo nañ ree nañ El Hadj la ngay tàggoo mooy tàggoo mooy di bëggee ñëpp di bëggee àdduna di bëggee waa Medina TV di kontaan ci képp ku bëggee El Hadj Keita képp ku fan sa El Hadj Keita maa ngi lay bëggee di kontaan ci yow di bëggee sunu caméraman yi fi teew ah ku ci mel ni Fallou Galas buri men ah moom mi nga xam ni début LH Keita yëpp daf ci jàpp buri men non buri j'ai j'ai même pas les mots parce dafa yàgg jàpp sama carrière guddil na ma bëccëgal na ma naajal na ma keral na ma buri aw ma lu ma fay barki ti yàlla Muhammad day liggéey ba pare ne ma booy ma dem maay dem ci kanam barki Seydina Muhammad barki ti yàlla Muhammad mu bëgg ma moo soxnaam te def naa ko lu ne mariage am sax maa ko waroon tëgg te tëgguma ko mu mere ma fi mais ba ma ñëwee ne ko baal ma def maa baal parce que munu maa bàyyi munu ma ko bàyyi kon buri lumu sumu sumb da koy daan te moom lu mu sumb ñun ñu ngi ci biir te dañ ci dañ ci dañ ci sóobu ba mu deex mook daam mbay Cyprien nee na Ndiaye mas ma ca barni géej fàllu moom moo doon sama buteur moo doon sama desar de kii Sele Mbaye tamit yàqu ci dara Sele Mbaye gor la garmi la parce que mënoon na ne ah, na ne booy daal man xaaral ma dem uti leneen lu ma def waaye dañoo gëm ba pare mu xool ay nitu démbam àdduna xamal na moo ci gën a neex sànq la laa la wax booy am succès na nga fekk nga ànd ak say nit moo dàq ci àdduna dafa neex loolu dafa neex nga xamante ni par exemple nga ba Cheikh ne ko Mbaye Cheikh yaay fàttali ko ba ñuy dem soirée PCS ba booy oto bu rouge ba loolu dafa neex ci àdduna loolu dafa neex ci àdduna moom dàmbay noonu la mel ak Fallou noonu la ñu mel ak Sele Mbaye te bu rëy seen raq waaye yàqu ca dara comprendre kon yàlla na seen jàmm yàgg Médina TV ca kaw ca kanam